sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw lii di xew actuellement nii est-ce que jàpp leen ne trop c'est ce que jàpp leen ne li ñu may président bi mu ngi bëgg ëpp est-ce que jàpp leen lii kenn ku nekk am na ci pax de responsabilité muy góor di jigéen di mag di ndaw sénégalais yi li ñu may kii mu ngi bëgg a ëpp de Cheikh Bara Ndiaye bu ñu waxee ñu ne état de santé dafa critique mu ngi ci duggante dund ak dee ñu ne déeta waaye ñu ne Pape Alé Niang évacué nañ ko Seydina Ousmane Sonko waxaale wuñ ay waxam Juan Branco mii ñu ngi ko jàpp nanguta lekk nanguta naan sénégalais yi est-ce que jàpp leen ne lépp lu ñu may président Macky Sall mi ñun am nañ ci part de responsabilité est-ce que affaire bi bëggut a ëpp est-ce que jàpp ngeen ne kii fa ñu jëm ak moom ndox am na fa est ce que est ce que jàpp li kii di def est ce que trop est ñun fa ñu jëm xam nañu ak président Macky est ce bi bëgg la léegi.